Bienvenue sur Salam comme ni leen ko waxee saa su ne rek ci li nga xamante ni moo di kàddu askan bi ci yoonu diine ci li nga xamante ne tey ji jot na fi am fi nga xamante ni moo di Pikine jëmm ji nag ngeen gis nag xam naa ne kenn dootu ko naatable ci réew mi te xam naa ne tamit jëmmam am na foo xamante ni yegg na fa ci wàllum këru diine yi tey mu nekk jàkka yoo xamante ne ak ay jumaa yoo xamante ne yàgg na cee dugal ay loxoom tey ji ñu amoon benn problème bu ndaw boo xam ne amoon na fi nga xamante ni moo di Pikine fi nga xamante ni moo di tey ñu nekkoon ci ay problème yoo xamante ni ay affaire yu discuté yoo xamante am na loo xamante ni nag dootuñ ci laam-laame lenn bàyyi coow jugoon ci mais nag moom mi nga xamante ne nag tey ji moom jëmm la tamit ci biir jëmm yi nga xamante ni tey ji yàgg naa jël tey ji dooleem tey di ko dugal tey ci biir kër li nga xamante ni moo di diine yi dañ koy bay mu présenté wu sëñ ngi lay siyaare ñu ngi lay ah, euh, nuyu bu di la siyaare mbokk yi jàkkaarloo ñun ñëpp ah, xam naa Euh, kàddu yi gannaaw bu ñu nuyoo nit ñi euh, sant site internet bi muy vision salaam salaam vision ñu ngi leen di nuyu bu baax leen siyaara di nuyu ñu ko jiite waaw ñun de dañu ñëwoon nag pour solution ci jumaa ji ak euh, jumaa nag alalu ñëpp la alalu ñëpp kenn ku nekk am na ci sañ-sañ man benn mbir rek laay taxaw ci mbiru jumaa mooy luñ ciy def na leer ci kanamu ñëpp Euh, na xaalis bi leer nañuy informer jullit yëpp man loolu rek lay xeex à part loolu xeexuma leneen bu dee ay affaires yi njiit damay faral di wax ne ku am néeg ku am kër doo ko coppantre euh, ay présidence ki demee noonu damay wax ne ku tul toog bis bu dee yaa ngi bitim réew doo ko coo présidence waaye nag li may yitteel mooy jumaa ji nañ ko liggéey léegi mu des nuñ koy liggéey nag loolu rek lay wax mooy nañ ñu defal devis bu leer bu dee euh, trois cent million la ñu xam ne dañoo am cinquante million bu ñuy avance ki koy liggéeyal ki ñuy liggéeyal euh, trente million xam ne deseel nañ ko quatre cent soixante dix millions waaye ñu jékki-jékki rek ne dañuy door liggéey bi xamuñu ñaataa koy liggéey dañuy jékki-jékki rek gas pax ne jox leen ñu cinq millions ñu dem ba yàgg ñu na ñu jox ñu sept million may leen du demee noonu nañ ñu defal début bu leer. bañ xam luy liggéey jumaa ji demandé nañ ko nag lu yàgg joxuñ ñu ñu ko plan yi nga gis euh, sàmm mbooj defar ko man ma euh, defar plan loolu buñ sañoon duñ ko defar buñ sañoon dañuy jiital waxtaan euh, ki jiite projet bi nag buntu waxtaan la dul la tëj man benn problème la am mooy lu toll ni jumaa gis nga heure buñ dajee di réunion yow da ngay mujj yow da ngay rus wallahi toog nañ ci jumaa ji di waxtaan mu am benn mag dañ ko manqué respect ci mbooloo mi ba muy jooy tax loolu ah waaw mais xale yi ñëw parce que nit ku laaj vingt pour cent ci yalwaan bi mais kooku doo solution ci jumaa ji yalwaan kese yalwaan pur liggéeyal li nga xamante moo di néegu yàlla di ci wut vingt pour cent xanaa kon kooku moom maanaam liggéeyal tuul te yàlla tax man maa ngi woon ci jumaa ji man mosumaa yëg vingt pour cent yi vingt pour cent yi dafa siiw Pikine yëpp ñëpp di ko waxtaanee ba ma yëg ko ma xam ne comme que dama ñëwoon pour régler problème yi naa leen dajale ñu waxtaan euh, ma ñaan leen ne leen wàññi leen vingt pour cent ngeen def ko dix pour cent mu am ko ci eh, ci ñoom ku ne ma lu ma mayut yàlla du ma ko may nit kon duñ maye vingt pour cent yi. duñ wàññi duñ wàññi vingt pour cent yi xanaa kon léegi man ci li ma gis moo di ñooñu kon vingt pour cent yooyu nga xamante ñu ngi koy def ci yalwaan bi xanaa kon ñoom seen jëm bopp léegi liggéeyatuñ te yàlla tax war a ilaa ko ñoom dañuy liggéey ngir seen i mais euh, loolu lañ mën a wax parce que bu fekkee ne ñoom nee nañ dañuy laaj vingt pour cent ñun ñu ñëw ñaan leen ne leen bàyyi leen ko mu jëral leen xuloo ba mu gi ñoom ñoo confisqué xaalis bi jumaa ji téye ko fii may wax ak yow ndax dama dama nekk tukki ah, xaalisu mbooloo dafa war a dëñ benn nit di jël décision pour ñu génnee ko man lañ bëggoon a dugal ci kii boobu man ne leen man duma ci dugg parce que benn nit laa xaalis bi dañ ko dugaloon ci benn place pour sécuriser ko man li ma d'accord mooy xaalis bi nañ ko yóbbu ci compte denc ko fa man loolu laa d'accord ndax biñ koy yóbbu ci kànkaayri bi yëpp li taxoon ñu def ko mooy problème moo taxoon dem nañ bay yàgg xaalis bi àgg na ci benn somme bi mën a dem bay àgg ay trente quelques millions booleeg li famille mbooj bi joxe boo ko boolee daanaka mu mat cinquante millions euh, waaw kon dafay jaadu ñu jël xaalis boobu dugal ko ci compte man ci loolu laa d'accord waaye nag mënuñ ko dugal ci compte te organiser mbooloo mi. loolu moo mënta ne. kenn ku nekk ñu xam ne kii moom lañ sarse moom moo yor wàllu xaalis bi diw muy commissaire de compte bi amul. dañuy jékki-jékki rek ay nit jël benn kayit dem ci kànkaayar bi ne dañoo soxla temps ci xaalis borom kànkaayar bi omo mën a ko boo ko joxee yaa koy fay nañ bàyyi ba waxtaan ba déggoo ci kàddu euh, ba teg programme bu leer door a génnee xaalis. te jii euh, am na ñoo xamante ni man dégg naa ko ci wewu béy nee nañ bi ngay ñëw ci jumaa ji da nga fay fekkoon ay bor yoo xamante ni yow sa jëm bopp yaa tax ba bor yooyu noonu ñu fay. waaw loolu loolu dëgg la bor tamit dafa am lu ko sababoon. xam nga man comme li ma wax rek bi may ñëw ci jumaa ji comme ni ñëpp di amee information noonu amee information parce que euh, li xew ci jumaa yi nañ ci waxtaan tax na góor yëpp daw jumaay yi muy xëccoo xaalis xëccoo njiit moo tax lu jege vingt ans maa ngi julli ci jumaa ji ndax mosuma nangoo dugg ci jumaa ji waaye tamit ci benn côté baaxul ndax amaana am na taxawaay buñ doon taxaw ci jumaa ji lii daal jumaa ji du ko dal Hmm? buñ ñëwoon taxaw ci bu yàgg ba xale yi ñëw dugg ci jumaa ji di dundee jumaa ji duñ ci dugg xas nañ dugg ba tëral benn programme ba jumaa ji di ci gis boppam xale yooyu duñ tax ñu génnaat ci donte tooguñu danañu ut ay nit ñu nekk ci jumaa ji di contrôler xaalisi jumaa ji ba du dugg fu mu war ci dugg ñun loolu rek moo ñu fa bàyyi waaye amaa ay njiit ak yu demee noonu wax naa leen ko ci biir daje bi may leen ku tabax jàkka def ko R plus 2 tànn beneen imam muy jiite bu amee ngant oustaz bi jàngale ci daara ji jiite eh, kooku du xëccoo njiit fii laa gën a yelloo ci jiite di fi nga dëkk te fi nga takkalool mu nekk loo xamante ni yaa jël sa xaalisu bopp tabaxee ko li nga xamante ni moo di këru yàlla est-ce que léegi jotul léegi nit ñu bari ñi nga xamante ni yor nañ seen alal est-ce que jotul léegi ñu jël exemple bi nga jotal fii kër la woon te kër gi ki ko moomoon bokkul ci bokkuñu diine kër laa jënd raase ko def ko jàkka da jël sa xaalisu bopp jënd kër raser ko def ko jaay. waaw xadratu jumaa yii ngay gis ñu di ko def Sénégal yëpp mais euh, jàkk ji moo ko jur biñ koy indi intégré ci la juddoo kon euh, yooyu yëpp sax damay wax ne dañ koy wax pour leeral rek waaye damay wax benn wax bu am solo mooy euh, daanaka suñu ndaw la ci ëpp fii dañ ko defee ci Pikine mosuñu génn Pikine depuis ñoom imaam Niang depuis ñoom imaam lii depuis ñoom imam Moussa Sall ñu ngi fii ci jumaa ji fi la ñu julli lansaar gi laa dëkkoon moom yàlla dogal mosuma dégg dëgg bi kon mos kenn mosuñoo dégg ci lu ñuy xeebe ñu dugg ci mbir nag ba ay nit gis ñu ci mais ñuy seetaan ñuy def lu ñuy xeebe ëllëg parce que tey ji man maa ngi fa woon tey ji problème bi yëpp daanaka fekk nañ ko lu ci bañ a tey ñu ngi ñoom tey ji ñu gis ne ay kàddu tey ji jug na fa mais tey ji boo gisee tey ji ñu déplacé waat foofu tey ñaat tey ba sa biir kër ñi parce que dañuy bañ tamit ëllëg tamit nit ñi gis kat image daanaka diw kat fekk nañ ko ci image nangam parce que gis nañ ko fa am na kat nu mu waxee woon tam foofu kat coow jóge woon na fa maanaam loolu moo waral tey ji suñu tànk fii tey ci biir kër gi ngir am loo xam ne da nga koy leeral ngir ëllëg parce que dafa am jëmm yoo xamante ne bu nekkee ci biir mbir yoo xamante ni kat ay coow dafa am léegi day jot léegi nag jëmm jooju nga xam ne kenn mosu koo gis si ay coow mu nekk si biir coow loola kon il faut que ñu dëkk ko suñu micro laaj kon lan moo waral loolu loolu moo tax ñu déplacé wu ñëpp mais dernier kàddu ñu bàyyi la léegi euh, gis nga xaalis bi nga doon wax ne euh, moom lañ fay ci jumaa ji am na waaye toog naa monsieur le maire parce que man lépp lu manti doon damay ut information yi ba leer ah, gis nga Samba Dara mii bi may ñëw damaa fekk ñu accusé ko ne dafa lekk xaalis jumaa ji loolu laa fa fekk léegi bi ma doxalee 2018 ba léegi su ma ko gisul mu lekk xaalis jumaa ji lu may seede ci moom baax damay seede ne lekkul xaalis jumaa ji woon nag damay wax ne mënu ma cee seede ndax fekkee wu ma ko xaalis bii ñuy wax ne moom lañ fay man maa toog monsieur le maire toog ndax mosuma ko gis man damay wax ne gox bii ñu nekk gox bii ñu nekk du ab ministre du maire du am d'affaires du milliardaire bu mu mës a fëgg sa wax la soxla man maa wax lool yóbbu la sama soxla bopp lu ma def sama poste nee naa ku dajeeg nit mu wax la ko rek naa la jox million man maa wax loolu parce que damaa amul temps wu nekk di taxawaalu waaye keroog laay door a toog ak moom ci bureau moom moo leeral ne moom moo demandé euh, kii bi. promoteur bi ne il faut ñu génnee benn somme xaalis bu mu dédommagé ñi wër jumaa ji doo leen a yëkkati moom moo ko wax ci làmmiñam Samba dara daan na ko wax nag aw ma ci woon lu leer waaye comme que am naa ci lu leer man bi ma ñëwee sax dama ne yooyu yëpp buñ ko seere xam nga lan la dañoo ñëw ngir régler problème ma di leen di ñaan man maa ñaan xale yi nekkoon ci coow li ne leen ngir yàlla nañ fay xaalis bii nga xam ne ci turu jumaa ji lañ ko jëlee woon ñoom bi leen laajee lu nekk ci seen compte ñu nangu ko génnee ma ne leen nañ génnee ci xaalis bi ñuy dajale di ko annoncé nit ñi complété ko waaye buñ ci yem ajjuma bi ci topp nañ demaat ca mbooloom jumaa ja fekk ne lu jiitu ñuy génnee xaalis bi dem naa ca mbooloom jumaa ja ma ne leen ñun kët bëgg nañu génnee un million ci xaalis bi pour fay xaalis bi nga xam ne ci turu jumaa ji lañ ko fayoon pour wàllu coowal kanti ndéeg yooyu jeex bañ ko defee ba pare ma dellusiwaat ci mbooloom jumaa ji annoncé leen nañ fay nañ leen fay nañ xaalis bi yëgle ne am na lu wàññeeku ci xaalis bi parce que xaalis bi mënuñ di yalwaan nit ñi ba noppi da leen ci jubaa ji lañ koy def te luñ financé jubaa ji duñ ko nangu leeralal waa jubaa man loolu rek mooy sama problème. lëndëm lëndëm kon am na ci. damaa bëgg lépp lu ñuy def ñu dem ci mbooloom jumaa ji ku dëkk parcelle ñëw jullee fi sax bu ñëwee mën naa jël kayam ne waa jumaa ji de am nañ temps ci xaalis nee nañ génnee nañ ci temps mu def temps waaye ñu bëgg euh, def ko mbiru groupe ñeent juróomi nit ñooy seq jumaa ji biir bi kat intérêt personnel day xas dugg boo intérêt personnel duggee doomu aadama doomu aadama rek la xaalis bi jeex loolu laay bañ si sama côté ak côté yeneen yi lépp lu ñuy def nañ ko def yëfu mbooloo ñëpp bokk ko man ci loolu laay woote leneen lu dul loolu yitteelu ma ndax nag euh, man proposé nañ ma doon imam fii depuis 2012 dama ko gàntal parce que manuma ko loo manul da nga naan manuma ko proposé nañ ma it doon président ci lii manuma ko ndax du ma toog yaa war a fekkee yaa war a signé boo doonee président doo taa del jumaa ji manuma ko en même temps damaa wax ne nag ku ma fekk may xëccoo président ci jumaa ji lu may wax liñ doon ci réew mi xanaa ñoom ñooñu fa daje ci jumaa ji ku ma doon xëccul réew mi nga perte ñoom xam nañ ko kon nekkuñu fi ngir lu del siwaat ci jëmmu nit ki dañ fan del si ngir jumaa ji gàcce la ci ñun biñ ko daanelee ba léegi mën na ko ñoo teg feuille de route bu leer bu ñëpp déggoo feuille de route bi mooy plan feuille de bi mooy ñaataa koy liggéey mbirum mbooloo la nañ ko waxtaanee ba déggoo ci plan ba ñaari plan juddoogul mënoon nañoo déggoo ci benn plan comme que yeneen ñaari plan déggoo na euh, juddu na mais nañ waxtaanee plan yëpp lu bañ lu tax ñu bañ ñu waxtaan nañ waxtaan ba déggoo door a def man lu dul loolu waxtaanee wu ko muy Amadou muy Samba Mbodj muy xale yi séq yëpp dafa am nag benn mbir bu euh, miin mooy jàpp nañ ne boo ñëwee ci jumaa ji buñ la agressé wax la lu garaaw da nga gedd dem nee naa loolu du continuer kilifa ya fa nekk ku leen mën a jox cër nga jox leen ko ku leen a jox cër duñ ko seetaanati ay xale koy def ay xale ni ñoom ñoo nekk ci jumaa ji te wax naa ko ñi seqal jumaa ji mën na leen soxlawuñ fi xuloo soxlawuñ fi xeex ndax bu fi xeex amee jumaa jee perte waaye képp ku fi def lu warta jaadu yoon a ngi fi dañ la teg ci yoon à part leneen lu dul loolu yitteeluñu nañ liggéey jumaa ji waaye nañ ko teg ci yoon wu leer ba ci buñ demee ba di ko liggéey war nañoo taxawal commission buy saytu liggéey bi seen xam-xam màcc jëm ci tabax bu ñëwee ba yàgg plan biñ leen jox ñu changé plan bi man dama leen proposé nañ ñu ut luy tolloog juróomi entrepreneur yi bokkul buñ ñëwee ñu jox leen plan yi ñoom ñëpp ñu jël ko yóbbu ko buñ ko yóbboo def kenn ku nekk devis indil ñu ñu dajale commission bi saytu liggéey bi ñu saytondoo Euh, kii yi ñuy indil euh, devis yi ñuy indil ba déggoo ci kàddu ne devis bii lañ tànn ñu door a dajee ci notaire def contrat ñu wax ñaata ñaata tranche la ñuy fay promoteur bi bu fekkee cent millions lañ lañ koy fay dañ ko war a avance dix mi euh, dix millions wala dañ ko war a avance vingt millions ñu avance ko vingt millions xam ne defe nañ quatre-vingts millions waaye jékki-jékki gat ay pax ne dañuy door li ñu war a door kenn xamul lu mu doon xam kenn xamul ñaata la kenn xamul promoteur bi kan la waa léegi bu jumaa ji suuxee kan la suuxal jullit ñi man na ci loolu laa nekk pour feex pour mu bañ a am à part loolu jumaa ji bu taxawee programme bu leer ñu présenté ñu ba léegi bu ngeen seetloo dimanche bi passé demande autorisation ki yor euh, euh, ki nga xam ne moo yor euh, liggéey bi nga xam ne moom lañ def chef de projet daf ne damaa bëgg door liggéey bi mais ba léegi waxul liggéey bi bi door ñaata dafa waroon a ñëw ci mbooloo mi ne mbooloo mi man ka defar naa plan euh, biñ ma defalee par plan armé beton temps moo koy liggéey yëkkati ba mu raase temps la coulage temps la premier niveau lii la deuxième niveau nii la man dinaa maye fondation bi ñu ne la d'accord nga ne nga bindanteeg jumaa ji ne man engagé wu naa man diw dinaa defal fondation jumaa ji temps la coûté bu ma demee ba yegg foofu dinaa taxaw benn matériel maa koy def man maay fay main d'œuvre mais ñu xam ne bindante nga waaye damay maye nooy maye loolu yëpp lañ demandé dafay maye d'accord nañ ne day maye waaye lim ñuy may na bindanteeg ñun ñu xam fan lay yem nga xam ne bu ñuy door danañ xam fu ñu war a tàmbalee continuer ñoom nag ay surga lañ ko séqal ñi ko séqal ay surga lañ ndax mënoo yor lu toll nii procès liggéeyu jumaa ji ñi ko séqal ñu lay jàppale boo sumee sa dàll ñoo la koy bokkal sa dàll doom bi bi ñuy tëbaski dàll mag dàll doom kenn ci ñoom moo ko bokk téyel ko kooku da nga bëgg a def ñu ne la doo def non responsable la ñuy responsable ñu xam ne kilifa la ñuy kilifa it ñu nangul ko lu mu doon moom it nañu nangul lu ñu doon dañuy contrôler liggéey bi suñ ko contrôler wul du ko liggéey te mooy contrôler ko ba mu teg ko ci yoon waaye ba léegi ñun waxuñu ne du doon chef de procès am na fu ñuy yegg nag dañ koy teg fële taxawal bureau ut chef de procès bu ñu liggéeyal jumaa ji ndax kenn du tardeel jumaa ji nii mu yéexee bañ ut plan am na nu muy continuer dañuy ut keneen ñun yéene wuñ ko lu dul na saytu jumaa ji liggéey ko waaye nag ci kaw day ànd ak ñoo xam ne mën nañoo liggéey jumaa ji waaye koo xam ne bu nit ñi dajee tàggal la gën a mën ni teg programme yow bu milliardaire nga dañ buñ la bàyyee nga def nangam a nangam yow yaay nangam mais noonu loolu dajale wuñu li ñu dajale muy jumaa ji sans jumaa ji am na ci ñoo xam ne duñ toog ak man loolu rek la ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant euh, waa salaam Vision di ñaan yàlla yàlla yaatal ko réyal ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah amati nañ bégte kàddu yi loolu la woon li nga xamante ni mooy euh, li fi jotoon am bienvenue sur Thank you.